Ouais. en réalité Covid mosul disparaître. Mm-hmm. effet bi moo wàññeeku. mais mi ngi existé ba léegi. États-Unis bala ma jógee ba léegi les gens prennent des dispositions parce que le Covid est la Mmh. c'est la même chose pour le Sénégal. la lan lan lañ si war a euh, jàngal nag euh, question pèlerin yi ñun am nañu aussi ay rassemblement yoo xam ne dañ koy def maanaam. Euh, màggal léegi mu ñëw gàmmu gi yooyu il faut que ñu jël aussi suñu précaution euh, pour que lu mel ni bañ am ampleur si rassemblement yi. Hmm. donc rassemblement yi il faut que ñu continuer di jël des dispositions pour sécuriser en tout cas les pèlerins. ganale màkk yi. waaw si si non seulement si ganale màkk yi. Hmm. war nañ def un effort c'est-à-dire ñi nga xam ni euh, déjà ñoom gis nañ ni ils sont positifs. Hmm. am na nu war demee si ganale bi pour ñu mm. bañ nag am en contact avec les gens mm-hmm. et cetera mm-hmm. euh, loolu lu am solo la mm-hmm. ñii ñëw aussi donc euh, def attention et puis ñu bañ a favoriser regroupement yi comme ni ñu ko doon defee ñëw di rey nag yeeg yooyu di lang <laughs> donc euh, pour une meilleure sécurité pour tout le monde mais daal Covid baa ngi fii nit ñi suñu waree am rassemble nañu génn waat yenn masques yi di ko sol wala ñuy dem dans les hôpitaux et tout ça nañu takk seen masque. Mm-hmm. yooyu yëpp ci mesure de sécurité yi la bokk. Mm-hmm.